parti politique doo ko utiliser parce que la loi sénégalaise ni mu permettre ñu conquérir coalition de parti yi ak indépendant yi conditionnalité yi ñu tegoon indépendant yi nag hmm. nga jëloon ay parti politique demee ci ñu hmm. jafewuñu ñun bu ñu jugee nekk ay ndawu Sénégal ay ndaw jugee Kaolack ak ay bërëb yu fasanti ko hmm. am parti yu ñu ànd ak ñu porté ñu jafewut mais xam nga lan moo jafewoon ñun ñoo amoon yéene ne comme que Kaolack moom nañu fexe ba am benn parti bu jugee Kaolack mhm. malheureusement ku jugee Kaolack moo ñu war waaye loolu du lu guleet ci politique du guleet aussi ci doxalu àdduna très bien dinañ ko gën a yaatal le temps que itam ñu jox Fatou Abdou Ndiaye moom it mu tabbi ci waxtaan bi ginnaaw ba ñu leen di feneen la bu baax Mouhamed mhm. nuyu également Ndeye Timet Fadel ñi ngi lay nuyu bu baax a baax ak mhm. monsieur Guèye Cheikh Mbacké bu ñu ñëwee Euh, tey euh, la woon procès bi nga xamante ne moom moo ñeel euh, Simon ak ki nga xam ne mooy kilifa. Mm-hmm. c'est vrai que nekkatoo Y'en a marre puisque ay jamono yaa nekkoon coordonnateur bi. lu mm-hmm. jig nga jox ko Aliou Sané mais ban appréciation nga am ci li nga xam ne moom moo fa tukkee Simon ñu may ko liberté provisoire. Mm-hmm. mais ki nga xam ne mooy kilifa ñu bañal ko ko. dama jàpp ne ñoom ñaar ñëpp waruñu woon a toog àpp bi yëpp ci kese gi. waruñu woon toog àpp bi yëpp. Simon may nañ ko liberté provisoire ndax santé moo ko permettre loolu la ñuy wax alhamdulilahi rabil alamin parce que ñun ñu ko xam xam nañ ne euh, santé demewuloon noonu. Euh, ñu di ko ma masaw euh, kilifa mi fa des aussi ñu ngi koy wax mu am courage parce que aussi boo nekkee ci épreuve yi foog mu am moral bu dëgër mu taxaw mais teguñu ko fenn. Mm-hmm. lan moo tax nga ne teguñu ko fenn. li ma ci teguñu fenn ci liñ leen jàpp téye leen fa ba ba ba léegi gis nga. wax naa ko waxaat naa ko dinaa ko répété xëy na waaye naa maar mu ñëw nañ fi taxaw gën ko expliquer mais en tant que citoyen sénégalais am naa droit ma def ci sama analyse mm-hmm. bi yëf yi amee yaanaamaar dafa am benn posture bu mu taxawee condamné ko en tant que ne jëf yi bokk maanaam y'a une faute morale bu mu reconnaître mm-hmm. que y'a une faute morale boo xam ne xaaree wuñ ko ci kilifa ak ki simon li ñu fi gis nii mais état utiliser ko pour jël ay doomu réew yoo xam ne ak fi ñu jaar ak Sénégal ak fi ñu jaar ak Afrique bu fekkoon ne dañ leen a jàpp ñooy dañ leen jël ay quatre cent millions wu jàmbur. pour wala ñu dañu jaay seen combat. mais li ñu leen di reprocher dans le fond question yi mu posé ñun moom la moom la ñu posé wut. kan moo am droit circuler ak kan moo amul droit circuler ci biir réew. Mhm. kan moo droit am visa ak kan moo amul droit visa. américain bi bu fi ñëw doy dugg nu mu ko neexee ñun. japonais bi def ñuy jaay visa français bi daf ñuy jaay visa espagnol bi daf ñuy jaay visa atta euh, dëkk yu ndaw yi joor ju sax dañ ñuy jaay visa ñun suñu deemu réew bu ñuy góorgóorlu di rëj ndax dañ ñëw tëj ba kenn mënut te génn gis nga bari bi démb di dal Omar Mbuub fële ci amba ci ci amba ci ci aéroport bu Bruxelles parce que noir la ñu ne ko li nga yor ci xaalis doo continuer sa voyage mais est-ce xaaral je suis de justifier quoi juste nekkuma di layal dama la wax ni la dafa am question yu posé wu gis nga Fatou Abdou bu fekkoon ne ci réewu Sénégal ku dimbali sa moromu sénégalais atta sax daf la jox xaalis pour nga yóbbaale ko Europe président de la république lañ njëkk a jàpp téye leen. Mm-hmm. sëriñ si dañ dañ ci jàpp ñu bëri ñaat ban sénégalais moo dimbaliwut moromu sénégalais pour mu tukki xaaruñ nag ci kilifa ak Simon ñu def ko di ci lakk xaalis xaaruñ ko ci ñoom du seen cër. waaye bu demee ba am état bugg ci profit jëlee terme yoo xam ne Union européenne moo ko créé pour faagaagal doomu africain yi maanaam trafic de migrants. kan mooy migrant on prend des termes xam ne yi ñoo ñu koy tënkee ñun. ñun suñu état di ko utiliser pour dañu ko tënkee ci suñu biir réew yooyu laa wax ne jaaduwut xam nga nekk bu ma waxtaw fii ne damay justifier dugguma ci débat mm-hmm. politicien boobu toujours damay wax ne su ma nekkee télé barki dem rek kenn fàttali na ma ko dafay mel ne Sénégalais dañ ma accepté seen biir salon mm-hmm. wax lu leer loo xam ne teguma ko ci ay xuloo wala parparloo wala kujje mm-hmm. mais damay wax lu nga yaakaar ci xam-xam gis nga bu fekkoon ne ku dimbali sa morom pour mu tukki surtout tukki gi jafeel nañ ko jafeel boo xam ne ndaxte ñun ay noir lañ amuñu droit tukki gi jafee nañ ko jafe boo xam ne ndaxte ay ay lañ amuñu droit tukki comme yeneen doomu aadama yi ci yeneen kii ni ñu war a tukkee li ma ci métti mooy suñu état bu jëlee ces mêmes di ko xeexee ci politique parce que téye bi ñu leen téye daan bi ñu leen ci bëgg daan teg leen ko bëgg leen toroxal ci kaso gi mhm. politique da cee mujj rax mhm. parce que ci délits yii rek mënoo leen def ay trafic de migrants complexité ci jamono ji nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen a fal ñu baatu réew mi nekk ay député ñoom ñu tànn leen ñu jël institution bi di ko utiliser ñooñu ba léegi on a du mal à ce que loolu problème la euh, peut-être ci politique boobu euh, sànq Mouhamed mi ngi koy laaj monsieur Guèye mais yow également ban analyse nga ci am les propos du président Macky Sall mhm. ñaari propos yu mu yëkkati fa nga xam ne moom mooy France mooy euh, moom kenn mënu ko xoqatal moo am pouvoir moo am la force mu mel ne kàddu yu mu yëkkati teg ko ci kaw kujje politique gi euh, wax pouvoir muy renvoyé au président de la république mais mu wax leneen jëm ci ne man maa autorisé yenn liste yi nga xam ne ñoo fare euh, ci euh, nguur gi maanaam coalition benn Bokk Yaakaar jëppee ko ay liste parallèle ban commentaire nga am ci kàddu yi nga xam ne moom yëkkati na ko président de la république amul dara lu bees amul lu bees pour ki nga xam ne mu ngi topp Macky Sall président Macky Sall bi mu faloo Macky Sall d'abord en tant que candidat ensuite président Macky Sall bu mu faloo ba bu muy faluwaatee engagement yi mu jëloon bu ko fonkoon ak respecté ko duñ yegg si fii ak moom benn bu fekkoon na ba muy signé charte de bonne gouvernance des assises nationales mais nee na sous réserve la même réserve gor gor la rek signature mhm. kaddu kaddu la da nga ko signé parce que jamono yooyu soxla woon nga et de toute façon daf ko défendre woon mhm. ne boo nekkee chef de parti en même temps nga nekk président de la république loolu mooy indi lu mel nii parce que booy wax du ñu xàmmee kan mooy wax du ñu xàmmee ndax chef de parti bi mooy wax du ñu xàmmee ndax président de la république bi mooy wax fu réew mi toll loolu sama commentaire la mm-hmm. ci jafe-jafe comme d'ailleurs nu ko rappeur bi euh, euh, bu ahlu brick rabee mm-hmm. ak fu réew mi toll ak fi ñu jafe-jafe yi ak jaaxle gi nekk ci sénégalais yi bu ñu demee ba ñu mel ni ñu ñuy proposer jàmm mm. parce que on a peur pour notre pays jaaxle na ngir suñu réew mm-hmm. le président de la république moom moo war a nekk nit ku njëkk mm. ki nga xam ne moom moo mun a fexe ba tiim sénégalais yi maanaam mu jël hauteur et non pas mu nekk ci biir dóorante ak xeexante gis nga bugguma di pro commenter ay propos mm. mais lii dafay rek yokk ci violence verbale mais est-ce que amu leen parce que loolu dafa bokkoon ci dialogue politique bi moom mu mhm. wax carrément ne lu jëm ci chef de parti président de la mhm. république xel xalaatul sax ñu koy laal ndax kenn du gor garab goo xamante ne ci nga toog boobu mi mu ko waxee ak léegi mhm. peut-être mu waroon nekk le combat de l'opposition de la société civile mais amu ci lenn loo xamante ne comme jéego quand même def ngeen ko ci xam nga bu fekkee ne bu fekkee dañu la fal falaat la am sa majorité ngay doxalee ni mu la neexee nit ñi mënuñ lu dul euh, ŋàññi xarab mais duñ taal réew mi ndax loolu hmm. yaakaaruma ko da ngay xaar ba élection yi ñëw nga liggéey li nga war a liggéey pour que nit ñi ràññee bu ñuy tànnati duñ tànnati rek léegi nag dafa jot ju Sénégalais yi xam naka la ñuy tànnee hmm. mais li nga xam ne laa ci bëgg yokk juste rek xam naa ne mais euh, pour ne pas mooy que gis nga euh, président de la république bu fekkee ne moom il faut que ñu yegsi ci niveau boo xam ne fokk mu génn totalement ci indi ci ci ci ci ci maanaam sortir du lot Mm. mënuloo ne da ngay jiite nit ñi ba pare nekk ci seen biir nekk ci seen ginnaaw ku dóora ko nga fayante mënut a nekk mm-hmm. te lii yëpp loolu moo ko indi encore une fois de plus mu ne la boo nekkee chef de parti ne da nga xuloo comme chef de parti nga ne da nekk président de la république boot sénégalais yëpp. du sotti du sotti. <laughs> loolu moo ñu indi jafe-jafe alors Cheikh peut-être un commentaire par rapport ak actualité bi fi xëy na euh, quelques démarches du président de la république déjà mbirum euh, Simon ak ak. Euh, kilifa mhm. yi nga xam ne ñu ngi ciy convoqué justice à deux vitesses aujourd'hui am na ñu fi jot ñu ñu ñu fi daloon gis nañ ni mu mujjee alors yow mbir mi ba mu ba mu xewee yees am na kàddu yoo ci yëkkati ngay jàngatee euh, ban commentaire ngay def par rapport ak tout ce qui se passe ak ñooñu par rapport ak euh, li ñuy duppee euh, justice à deux vitesses yu ñu nemmeeku ci dossier bi. waaw je mhm. de très sensible. soo demee fi invité ci benn émission ci concernant les passeports diplomatiques. Mhm. ak trafic bi ci am. bien sûr bon quel que puisse par ailleurs difficulté yi nit ñi di jànkonteel pour tukki. Mhm. nit ñi tam dañoo war teg mbir yi ci yoon. bon affaire ak kilifa comme ni nga ko gisee. man jàngat benn rek ñoom dañuy oote équité justice ak loyauté ça c'est mon c'est mon point de vue nit nag état nag bu fekkee ni da nga koy attaquer tout le temps c'est de bonne guerre bu amee benn porte-parole mu am ci rek moom it day fayu parce que aussi c'est comme ça la vie moi je pense que ñoom ñoom ils ont été un peu imprudents ça devrait se passer noonu su damay wax rek ils ont été un peu imprudents xam nga ah. tax parce que ils ont manqué sa imprudence pour xeex la politiquement non loolu du loolu sax mais xam nga ñoom aussi. justice la wax rek. Mm. te xam nga justice aussi état bi moo yore justice bi comme mm. on dit. bu mm. fekkee yow da ngay sangu. da nga war a jiitu. yow da ngay prudent ndax yow yow da nga yore da nga yow yow yow da ngay da ngay nekk porte parole nit ñi société bi ci bari société civile beeg yu demee noonu. di wax ci nit ñi war a comporté woo nit ñi war a bu fekkee nag yow gars yi nag li ma li nga xam ne moom laa condamné ko filmé. Mhm. moi je dis que loolu moom c'est à vraiment à mhm. parce que ay doomu aadama li ñuy wax seen secret nga jël ko ko moom loolu naa ko trop mhm. moom Sénégal wala ñu jugaat ci loolu parce que nit ñi mënuñu toog. di wax seen ay mbir ci ay secret ay doomu aadama di leen weer ak di leen yàqal ñoom nag ils ont été un peu impru euh, prudent imprudent parce que lu tax mooy bu ñu fekkee ne ñoom dañuy dañuy tout le temps dañuy ŋàññi état bi dañuy ŋàññi seen doxalin ñoom dañoo war a fekk ñoom ñu nekk ci yoon bu baax woo xam ne ëllëg du ñu mën a ŋàññi ci dara ils ont commis des erreurs c'est vrai bon ils ont bon l'état aussi en a profité je dis l'état mooy donc bu fekkee yow da nga bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nga avoué mhm. que ne état dafay profito ci moment de faiblesse d'un concitoyen wala benn doomu Sénégal pour teg nëgg sarax boobu non du faiblesse est-ce pas grave quand même non du bu ñu yeggee foofu Sénégal mais non justice moo def liggéeyam